gars yi Ada Fass ak Gouye Gui taxaw na combat bi taxaw na léegi léegi nii jaajëf. gars yi Ada Fass ak Gouye Gui taxaw na combat bi taxaw na léegi léegi nii jaajëf. gars yi Ada Fass ak Gouye Gui taxaw na combat bi taxaw na léegi léegi nii jaajëf.